billah bisimillah inna la hawla wala quwwata illa billahi alil azim mbokk yi a wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baal xaq eh, di jiital ci nuyu ak ziyaar yi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi ànd ak di ko ñaanal mboolem kilifa diine yëpp di ñaanal way taw di yal na yàlla saafara leen way daw yal na yàlla yem leen te jéggal leen ñun ñu fi dese ne yal na yàlla guddal suñu fan tënk ni siraatal mustaqim barke suñu dund barke Sëriñ niñ koy baaxoo di ànd ak yéen rek ci guddik àjjuma gu nekk di alxames ci ngoon à partir de 19h ci seen seen YouTube bi ñuy wax ND Vision Ndayane Vision ngeen mën ko am ci YouTube wala Facebook wala site bi di 3w point ndayan series point com ñoo dellu si ci seen émission bi ñuy wax tanbih wa taskir fil islam moo yeetante waaye fàttalente ci diine l'islam ndax loolu mooy li nga xam ne rek lu am solo la mu mel ni leeraloon nan maanaam lan mooy lislaam ngir ni mooy diine ji nga xam ni moom rek la yàlla nangu ni moom lay nangu fa moom ni mu waxe woon ne inna diina inda allahi al islaamu kaneen ko am la ne nag mën nga koo tuddee diine waaye diine ji yàlla reconnaître fi moom mooy lislaam nit ki tamit lépp lu mu nekk xam lii mooy lan day jekk day jaadu ngir dana ko gën a mën a tëye ba xam ni moom li mu yor lu wér la lu dëggu la tey dana fexe ba maanaam dana ko dimbali tamit ci loola lum ko digal mu def lum ko tere mu ba te ci loolu lay mën a amee li bëgg ci diggam ak borom bi tabaraka wa taala mu mel ni kon ginnaaw ni kii nag su juddoo nekkub jullit ah, ñu jox ko turu jullit mu nekkub jullit bi mu nekkee tu tànk day am at yoo xam ne bu fa tolloo lislaam du ko togg jëf moo xam bi maanaam buñ nee lii waajib la lu farata la ci moom lu war la moom mu def ko ñàkk ko def amul yenn daan yu ko ciy war waaye buñ nee lii tamit dafa xaraam dañ koo tere bu fekkente ni def na ko tamit amul yenn daan yu ko cay yu ko cay fekk <clears throat> ngir lan eggagul ci fi ñuy wax maanaam mesure mu mel ni ko nit ki am na fu muy toll ñu di ko wax kii kat muskallaf la comme ni ko def di waxee mooy liif koo xam ne dañ laa togg jëf mooy am na lu ñu waral ci sa ndodd su boobaa nag fekk na nga xam-xamee nekk mag su ko defee nag euh, su boobaa lislaam lim digle ni lii dafa war soo wàccu wante ak moom def ndigal yi daan ya nga xam ni moom la wax ni ku ko deful ñu teg la ko ñu musal la ca loola waaye bu nee lii de baaxut bu ko kenn def soo ko defee daan ya nga xam ni moom la wax ku ko def ñu teg la ko su boobaa boo tollee ci azu muskallaf lay doon kooku nit ki kon war naa fexe ba xam li nga xam ni moom la ak julit war a mel muy jikko yu muy jikkowoo ba mën a xam ni muy jëflanteeg borom bi tabaraka wa xam ni muy jëflanteeg doomu aadama yi mu nekkal ci kaw suuf xam ni mu lay jëflanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ni mooy royukaayam te moom la ñu yàlla toppaloo ndax wa in tutiuhu tahtadu loolu nag bi ci njëkk mooy nit ki defar xolam ba xol bi am li ñuy wax tawxiid te mooy imaanu gu mat sëkk ci gëm yàlla wóolu ko te doyloo ko te wakkiirlu ci moom ndax ngëm ci xol lay nekk su ko defee bu fexee ba xol bi moom ngëm yàlla gu wér li ñuy wax tasxiixul imaan nekk ci xolam su boobaa nag mu door a fexe xam naka lay def nag ngir yéwénal li ñuy wax faratay jëmmam waaye première bi na defar tawxiidam may na defar xolam diggam ak borom bi tabaraka wa taala ba nga xam ni gëm gi moom am na li ñuy wax euh, euh, maanaam wér na bu baax a baax su ci jógee ñaare bi kon muy fexe ba xam faratay jëmmam waaw ndax am na lu nga xam ne doomu aadama mëneen sa ko ko yóbbaaleel waaye sa farata jëmm kenn mën lu ko yóbbaaleel kon li ci jekk jaadu ci mooy nga fexee def tout ba xam ko sa kemt kàttan farata jëmm bu ñu ko waxee bokk na ci mu xam attey julli ndax bari waa na ci sama kalaas gi ñu nga xam dañuy julli rek waaye lan xam ci julli gi mooy allahu akbar asalaamaaleykum nit dana julli ba pare nga ne ko julli gi woon julli lan mooy euh, lan mooy atte bi du la ko wax bi maana nga laaj ko ci gàttal ni ko ndax julli gi farata la wala sunna la wala ndax dañ koo sopp wala nangami ki nangam du la ca mën a indil dara <clears throat> naka noonu mu xam attey làpp na ñuy jàppoog la ca ajoog la koy yàq ak ndox ma ñuy jàppee nañuy sangoo set ak la koy waral nañ koy defee fu ñu koy defee yëpp mu xam ko xam attey koor lan mooy atte bi na ñuy woore lañ ca bëgg lañ cay sib yëpp mu xam ko ba ci azaka ba ci aj màkka ak mboolem loo xam ni dafa duggaat ci li ñuy wax xawaidul islaam alxamsa muy ni ko sallallahu salaam wasallam waxawoon ni tabax na ni lislaam ci mi ponk te mooy ginnaaw ñaari baat seede yi taxawal julli joxe azaka woor weeru koor aj màkkatal mukarram ko ko man beneen ci dundam leen lu ci nekk dafa am maanaam lu cay farata lu cay sunna luñ ca sopp ak lu ca war su ko defee yooyu bu ko xamut moom muskallaf bi nekk jullit daa war a dem xam lu ji ko ni ko Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu waxe woon ni wa man jahila bi fardihi walam yasal fa nafsu abada wa zalam ku réer ay farataam dégg nga te demul laaj ko ba xam ko lépp lu ko dalkat moom na xam ni moo tooñ boppam kon nit ki daa war a fexe ba xam lan mooy faratay jëmmam te mooy yi ñuy wax te bari waa na ñi nga xam ne ñi ngi def naam ñi ngi góorgóorlu xay na ci waxtu yi di julleeg di woor waaye la cay farata wax dëgg yàlla xamuñu sax lu yàq xoor léeg ngi ñu def lu nga xam ne sax amaane seen koor même bu yàquwut mën naa wàññi seen tuyaaba ndax dañu koy sib ci koor te ñàkk xam moo koy ak yu demee noonu euh, beneen bi mu fexeetim ba xam li ñuy wax alxududullah mooy frontière yi nga xam ni moom na tabaraka wa taala yi rëdd ni bu kenn bu ko benn julit bu gëm jéggi te alxuraan dafa wax ne wa man yataadda hududullah faqad zalama nafsa mooy bu suñu borom ne fii rëdd naa ko muy frontière yow julit bi bul bëtt frontière boo xoolee sax ki zahir ci àdduna rek réew mii bu ne sama frontière fii la yem boo ko kenn bët gis nga boo jéggee frontière jàmbur li ngay jànkuwanteel tabaraka wa taala noonu la rëdd ay frontière ni jullit bi bul jéggi lii bul jéggi fii bul jéggi fii kon fi nga xam ne da faa defal limite dafa benn eh, rëdd bu ruus fexeel ba nga xam ne foofu kon ca ginnaaw dansé moo fa nekk fexeel ba bul jéggi limite boobu fexeel ba bul ko passé defal sa kemtu lay kattan ci mi war a xam ngir gën a wéral ak njullitam ak gëm yàllaam taxaw temm ci jëfe ndigalal subhaanahu wa taala yi kemtalay kàttanam waaye nag fexe ba lépp lu tere moom mu bañ koo jige waxuma nag di ko def ndigal yi moom dañoo wax ni ni ko olof di léeboo rek xëy na matal lépp jafe na waaye nga def sa kemtalay kàttan lañ ca man la nga mënut nga yéene ko bu ko defee yéene ji mottali loola waaye yin tere moom nga fexe waxuma la def waaye nga fexe ba bul jige ci yooye benn nga dawatu ko seen kàttan sa kemtalaay kàttan bokk na ci jullit bi góorgóorlu bay fexe di tuubal yàlla fu mu toll ndax salaasam ni waxe ne bunti tuub ubbi nañ ko waaye bis dana ñëw ñu tëj ko lim nekk moo xam def nga defoo foo rek ngay sàkku njégal subhaana wa taala mi nga xam ni dafa mat te yow matoo ku mat nag moo xam ni moom li ñuy wax ci ci ci ci kamaalam boo ko xoolee maanaam nuxsaanu doomu aadama mooy matadik doomu aadama ci wàññi ko la lay wër ni kon mënu ko jox lu mat kon loolu rek genn nga koy jéggalul yàlla saa su nekk donte ne yaa ngi lu ci julli ci woor ci natt azaka ci jàng alxuraan ci nangam ak nangam waaye du tee rek mu am yu nga xam ni boo ko doon xool di ko nattale ak li nga war a jox tabarak wa taala nga xam ne dafa nekk ku mat day mel ni ko li nga koy jox day des ba nga xam ni yooyu rek genn di tubal yàlla foo toll euh, guddi ak bëccëg kon muskal la fa na fu mu toll mu saxoo tuub guddi ak bëccëg gi fu mu toll muy tubal yàlla waaye rawatina nag bu ñuy wax tuub mu def ko tuub bu nga xam lu dëgglu ci moom surtout bu defee bàkkaar dañuy wax surutu taw ba saati tuub maanaam bi njëkk mooy nga rëccu mooy nga regretté li nga xam ne daa nga ko def ci lu neexul yàlla mooy ay mooy beneen bi mooy nga am intention ni man kat li des ci sama dund bàkkaar bi duutuma ca dellu waaw su ko defee tamit loola nga doon nekkan ba nga xam ni xamoo xëy na ñàkk xam loolu yu demee noonu automatiquement bi nga yëgee ni li baaxul rek na nga ko daal di bàyyi nu ngi koy misaale mi nga mel ni ngay dox gisoo xalu sawara wala pont bu nekk ci yoon wala xotti biteel ngay dox ba def ki sa tànk bu dee pont dalaa jam wala xotti biteel bi jam la ni ngay wadde dawale sa tànk ca doo ko ca tegaat bi nga xamee ni lii kat luy lore la noonu la jullit di tuube kon li nga nekk bu fekkee ñàkk xam moo tax nga nekk ci waa ilaa xëy na saytaane mën na la nga toppatim sa bànneex ba nga nekk ci bi bi nga bi nga ximmi ko rek da nga war ni waddet ni ngay wadde ci boo dëggee lu lay lor ke doo ca dellu ni mankat maa ngi doon bëgg a def musiba waaye daal di bàyyi loola soo ko bàyyi nag ngay am yéene ci ni lii ci àdduna dutuma defati lii su ma ko doon joxe misaal ci ni masalan bu fekkee nit ki day tux euh, maanaam dem ni jékki-jékki ñu ni ko lii mu wax ko lu ko li ci nekk ci wàllu maanaam dansé wu ci wér-gu-yaramam bu ko defee mu ne man kat xaw ma ko woon nii ak nii waaye bis ni tey bàyyi naa ko tayit li fekk maa ngi dund duutuma tëyëb mégo cigarette ki sama loxo naka noonu mboolem xeet yëpp itam noonu la wala mu ne li fekk maa ngi dund li def ci kaw suuf duutuma tëyëb biteel bu nga xam ni dañ caa defuk naan wala li fekk maa ngi dund ci kaw suuf li ma desee ki sama dund fasatuma yéene toog ak benn jigéen boo xam ni daganu may wax ak moom waxuma laak may séq ak moom leneen leneen ak yu demee noonu wala li fekk maa ngi dund dootuma jël loo xam ne alalu jàmbur la loolu mooy sàtti tuub kon mooy nga def nag loolu nga xam defan nga ko nag te xamoo ko woon toujours nag mu nekk loo xam daf lay metti mooy li nga xam ne moom ngay regretter di ko réccu waaye am intention gu set a sell ni li lay si sa dund moom duutoo ca dellu te nit ki bañ a yéexe tuub dema dem rek ba bi maax naa ko doon mooy ci wàllu cër ci wàllu njaalo dem ba tële ñëw mu ni tuub naa tuub googu yàlla soxlawu ko ko doon may ci wàllu cër tamit maanaam ngay wër di jël alal dem ba mën a too tuub googu yàlla ko dañoo bëgg jamono bi nga nekkee ci man nekk ci kàttan nekk ci doole man ko nga bàyyi loola ngir li ko yàlla tere waaye nga bàyyi ko ngir xeex sa batak sa bànneex ak sa bakk sa bakkan bànneex ak yar ko su ko defee tuub googu la yàlla soxla la alxuraan waxoon maanaam yàlla tuub nekkul ci dama dem ba gis rek dee taxaw na dem ba mënatoo dem ba tiit ki sa bopp ngay dooru tuub suñu borom nee na su boobaa tuub googu soxlawu ko kon mbokk yi ñu ngiy baalu àq bu baax a baax di amee ni foofu ba dellu si waat suñu dellu see incha allah daañu continuer waxtaane waat ci li nga xam ne ba tey julli bi noonu la war a man a jikkowoo ba man a nekk ak ñëpp ci kaw suuf waaye mën a mottali mission bi taxan yàlla wàcce ko te xam ni dafa wax ni kuntum xayra ummatin dinaa si loolu nag munta am ca xamuñu la nga xam ni mooy dëgg-dëgg julit naka la war a mel di leen jox dig daje ba alxames ak jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu